daañu dajeeg jullit ci néegu yàlla yi di waxtaane seen wàllu diine di leen yee kon nag war nañu am fu ñuy daje foo xam ni fii ñoo koy moomal seen bopp ba duñu duñu to maanaam duñu subordonné wu kenn ndax loolu yàlla moo leen ko sant ci alquran la aaya ba wàcce woon ca Makka yàlla ne woon sawa unil aakifu fihi wal baad imaam yi ñëpp yem ci ñoom kon nag fu ñuy waxee lu leen lew doom la war a doon yàlla dogal nag ci mbaaxam mbokk mu baax mu ñu alxaaji Mor Gueye sopp na bi yàlla tàggat ko ba mu jox leen benn pàkk pàkk boobu incha allahu ñu war a teg pose première yàlla muy samedi le 10 incha allah tey nag ñu ngi fi teew ak mbokki ay ma yëpp tabarakallah ñi nga xam ne ñoo ŋànk bureau bi fan lañ koy ñu ngi koy defee ca ngent ci tàkkusaan incha allah kon su ko defee ñëpp rek ñu leen ko yëgal teew na fi nag suñu mbokk alxaji Idrissa Gaye bokk ci ñi yore communication ci wàllu ligue bi le waaye itam bokk ci ñi nga xam ni lépp luy wàllu diine ci sopp nabi xaaji morgey ci loxoom la ko teg kon dañ koy jox kàddu gi mu wax ñu xew-xew boobu lan moo ko tax a jóg ak lan moo motiver sëñ morgey ba mu joxee pàkk boobu xaaji Idriss tafadal mashkura wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki Thiès rawati bokki Sénégal rawati àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar dileen ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaan ni ko xaaji Babacar Faye waxe ci ndigalu président bi nga xam ne moo jiite rabitatu ahimma wal fi iqlimi Thiès mu di imam alaaji ahmad boro njëgën mi ñu duppee maamam alaaji ahmad boro mi nekkoon imam raati bu Thiès jur alaaji ahmad njëgën alaaji ahmad njëgën moomu jur Alaaji Ahmad Baro mii nga xam ne tey moo jiite ligue bi ilimaanu Thiès nag bu ñu nee kuy seen président ñu ne Alaaji Ahmad Baro njëgën kenn du ni lu tax kenn du ni kuy kooku kenn du ni kañ la kañ la ko jiite mu toog ak ñi nga xam ni ku leen ni jàkk sa xel dem ci yàlla ku leen ni jàkk sa xel dem ci yàlla sunu mag secrétaire général alxaaji Dudu Gay mii toog nga xam ni boo ko nee jàkk sa xel dem ci lislaam ci taxawaay ci liggéey jël jotam yëpp wéram yëpp jox ko lislaam ak imaam Babacar Ndiaye Moor njaay imaam Moor Ndiaye mu Serigne Babacar si bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin bu Cheikh Seydi Aboubacar moo tax su ma ko dee jàkk rek imaam Moor fu ma jaar ni Babacar mu doon ki nga xam ni mooy trésorier bi te boo ko nee jàkk subaam guddeem ba cëgam lislaam dong la ak kii nga xam ni nag mooy imam Ousseynou Dieng nga xam ni fa tabaarakallaahu di borom xam-xam bu kenn lam laamewul ñu wuutu fi nag ñi des danu wuutu ñi des ndax Serigne Omar Dem mii doyoon na sëkk mu wax lii may bëgg a wax ndax ki nga xam ni moo joxe bërëb bi tax ñu war a daje mu di alxaaji Mor Gueye sopp na bi ëpp fi alal de magu fi de waaye ku ko ëppale mu gën laa rëy xol ci jël alalam def ci yoonu yàlla nit mën na jël lu tol na li mu jël def ko feneen waaye moom lu mu am delloo na ko ci yàlla inna laa shara min am muminina anfusakum wa amwalakum bi am anna lakumul na alaaji Mor Gueye sopp na bi jàng nag sacrifice de temps de bien de sang yàlla nee na lii lay jaay àjjana seen jot seen alal seen deret laajatuñu kenn deret ndax xeexiwuñu xam nga lu ñu laaj nit ñi seen jot ak seen alal alaaji Moor Géy sopp na bi jël jotam jox ko lislaam alaaji Moor jël alalam jox ko lislaam xam ni imaam yi ñooy sunu kilifa te jaadu na xutba yi ñuy def par àjjuma di ko def ci ayit yi jaadu na ñu am bërëb boo xam ne daañu fa daje waxtaane xutba yi tënku ko nga xam ne bu àjjuma jotee jumaa joo mën a dem ñooy bokk la ñuy wax message yi di jàll loolu nag dafa jaadu ñu am bërëb bu ñuy toog di ko waxtaane di nas lépp dellu ci alquran ak sunna ndax yonent bi nee na maa ngi dem de waaye ñaar laa leen bàyyil kitaaballahi wa sunnati imaam yi nag xam ne war nañoo am bërëb bu ñuy saytoo xutba yi yan message la ñu war a wax nan la ñu war a orienté nit ñi ndax nag réew mi mënu la jag mukk te imam yi taxaw réew mi mënuñoo am jàmm mukk te imaam yi taxawuñu ndax bu ñëpp a jaaxlee dinañu déglu kàddu imaam yi bis bu ne lu ma téeméeri nit ñu jiite leen tisbaar jiite leen saan jiite leen timis jiite leen géej jiite leen fajar ajjuma bu ne ay junney nit ñu jiite leen ñooñu kon jaadu na ñu am bërëb bu ñuy daje di waxtaan di nas ana ajjuma bii lan moo xew lan mooy actualité lu ñu war a wax ak nit ñi mu delluwaat ci alquran ak sunna bërëb boobu nag ñu yàgg koo wut waaye yàlla lu mu nam war na lu mu yàggale daa jot tolu jot yomb chance alaaji moor Gueye la sopp na bi chance am la am na ñu am lu li mu am waaye du seen cër du seen chance mu jël pàkk boo xam ne ay millions bu ko bëggoon am ko ci mu jox naa ko yàlla jox naa ko yàlla jaarale ko ci imam yi kii nga xam ni mooy président bi di sunu imam alaaji Ahmad Baro mu ànd ko liggéey bi yëpp bërëb boobu nag sant nañ ci yàlla de sant nañ ci yàlla de man lam yaskuri naasa lam yaskuri laa waaye sant nañu ci alaaji Umar Dem mii nga xam ni xam naa digganteem ak sopp bi xam naa yéeneem ci imaam yi xam naa yéeneem ci pàkk bi xam naa yéeneem ak xolam ba yàlla fayeñu ci jotaayam mu woote di ñaanal baayam nee naa ko sa ñaanu baay ga nangu na de ndax sa jotaayu ñaanu wéjur may ma doon waxtaanu waxtaan ba alaaji ngañ fay yàlla na ko yàlla dolli wér yëkkati kàddu ci turu ligue bi ni bëgg nañu bërëb boo xam ni dañu fay daje di fa waxtaan di fa waajal suñu discours suñu xutba di fa jàngale diina ku jaaxle sa xel dem ci ligue bi di nga xam fan la seen siège ne boo fa demee looy yóbbu looy laaji looy wuti ca masala diine di nga fa fekk ñu toog di la ko tontu bërëb boobu nag ba alaaji nga yëkkatee kàddoom alaaji moo dina jox naa leen ko mm-hmm. waaye imam yemul si jox leen ko dina ànd ak yéen ba ngeen jot seen caabi dañu woon day def fondation waaye weesu na loolu dañu woon day def fondation ba ngeen ñëwee di ko sant si mu ni weesu foofu dinaa yëkkate ba mu raase waaye li ma lay wax mooy dina leen gunge ba ngeen xëy jot caabi waaye nag lu baax dañ koy yaatal moo tax ñu def appel di def di def pause première pierre bi le dix gannaaw bu ñu demee à partir de seize heures ca ngent ma bëgg nag doomi Thiès yëpp doomi Sénégal yëpp kenn ku ne ñoo ngi lay woo ci bisu raabita bi nga ñëw teew si te jël sa alal def ko ci bëri ko bu tegu ci mbartal la ku teg loxo mu dem ku tegu loxo dem Thiès waa bu yàlla dimbali nga mën dara ba siège u imaam yi pare te sa alal dugg sa gisuma la mbaaw doonte mbaaw nga dëkk alhaaji Idrissa yàlla na la yàlla def mag te def la mag moo xam ni day gudd fan soo guddee fan nga am mujj gu rafet yàlla na ko yàlla defal li ñu war a wax daanaka wax nga ci li ci bari léegi nag man li may wax rek moo di mbootaay gi dafa am ay section mooy fii la seize bi nekk am nañu section tiwaaban am nañu section Mbuur am nañu ay sous-section jaxaaw Grand Thiès ba boori jàmm ñu ngi liggéey booba ba tey lii nu bëgg tey bay junj ni ni yàlla am na fu mu ñu ci puus ba ñu agsi fi alhamdulilahi alamin ki ci yàlla doon xaar bi mu agsee ci moom mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin jël na responsabilité keroog bi ñu toogee moom nee naa ko bi ñu formé ak léegi ñaar fukki at la yaakaaroon nañu ca biir dëkk ba waaye nag ndogalu yàlla kenn mënu koo fonk saa bu accès rek mu def ko léegi nag li yàlla wax kenn ku nekk sooye boo nga boole ci sa bopp yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulul amri wa ulil amri minkum buur sëriñ ak ñi nga xam ne yàlla jox na leen man-man ñu war di def mm-hmm. lii nag Mor Gueye sopp na sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii li su ne sopp na na bi ñu mhm. mu def keroog nee naa ko yow la yàlla doon xaar dat bi nga xam ne ci nga ci la bëgg lii taxaw ci bi mu agsee nag ah, tànqam lu woo ci dara yal na ko yàlla mottali ci sa kanam ñu ngi ci woo it képp koo xam ni dafa xat waaye li ñu yéene woon mooy képp ku nekk ci dëkk bi ñu dikk ba ci yow suk wax ak yow teer lii liggéeyu yàlla la turu kenn nekku ci Alaaji Amadou Baro moo ko président waaye nag euh, place yàlla la kon yàlla na ko yàlla mottali ñun ñëpp ñu fekke yàlla na ko yàlla rafetel ñun ñëpp ñu am yeneeni place yeneeni ci sous-section yi yàlla na ko yàlla mottali ci fekktee kenn ku nekk ci nun Mor Gueye ambition am toog naa ak moom ne bu dee kër bu ma dëkk yàlla may na ma ay kër bu ma dëkk li def ci man lépp lu ma yàlla jox dinaa ci waxtaan ak seen Idrissa Gueye ñu jublu ci daara yi jublu ci dimbale julli yi ak jumaa yi at bu ne bëgg naa tabax benn jumaa boo xam ne ci loxo Idrissa laa koy teg lii Mor moo ma ko wax lii ñuy def nii dafa am ñoo xam ne Idrissa Gay loo wax mbir danga koy yaatal ànd na ci nag ak rakkam boo xam ne moo ngi ca sali ñu koy wax Waly Faye mm-hmm. Waly Faye mm-hmm. bu nekk ca fali ca sali di taalibe Serigne Mansour Sy Djamil mm-hmm. ànd na ci ak moom nee na du ci seetaan moor benn kii moor gi benn yoon ak Cheikh Samb dox na ci maak moom ci wàllu alxuraan it sori na ci ak Idrissa Gay déwén dix millions teg na ko pour pour ñu teral alxuraan Mor def na ko loolu Idrissa Gueye nee na lu mu am ci wàllu diine Idrissa Gueye doy na ko ci moo jiital lépp moo jiital lépp man xëy na dama ci wax man Mor heure bu ñu toogee xam nga lu may wax ana ku ñu war a dimbali te yàlla tax ñu dimbali ko te yàlla tax moom nag yàlla def na duggul ci daray àdduna puukare àdduna soxlawu soo ko tuddee làmb doo ko gis loo ko mën tuddee tant yonent bi rek mu dem def ca dafa am benn jàngkat keroog moo ne mu ne man de di ma jaaxal sama gàmmu gi li fi ñëw ci ay jinsi àdduna bari na mais Mor Gueye li fi def kenn defu ko fi Mor nit ku baax la man nag maa ngi wax autorité kees yi ñi nga xam ne dañ naan ku nekk taxaw na nee na bëgg naa maire yi fii laa leen di seetaan waaw non non fii laay seetaan xam nga cees dafa am ñoo xam ne dañu naan bëgg nañu dëkk bi waaw mais fii lay leer affaire bi ci noor bi la nekk. ana waa noor. ñun nag daañu seeti autorité yëpp ak képp koo xam ne yàlla dimbal na la am nga dara dinañ la seeti muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nañ la seeti waxtaan ak yow duñ fi tudd kenn mais lii daal mbiru yàlla la fu imaam yi di dajale di di di xalaat loolu Mor Gueye ñu ko defal mu jël nag teg ko ci loxo jarbaatam ñu koy wax xaadim si ci buntu këram foofu ca ci xale bu baax boo xam ne gis ngeen keroog bu ngeen fa demee nu mu leen gàttandoo ak nu mu leen teeroo xaadim si def na ko ñun nag aw ma ci leneen lu ma ci autorité kees yi ku fi nekk di wut dara ak kuy wut maire yi ak ak koo xam ne bu nga dara yëf yaa ngoog yëf comme niñ ko waxee ku ci ñëwul nag dinaa xam ne yow dëkk bi yittelu la dangaa bëgg taxaw pour nax nit ñi te loolu du fi amee non c'est non ñun lii la ñu am xam nga ñun diine ji la ñu am moor ñi ko ëppale bari na mais xoola xool bu am pour def ko ci diine ji su amoon ñu mel ni moom tey kees dan dana kees day dem te xooleen mbiru àdduna soxlawu ci dara waaw bis bi le dix la dix juillet samedi bi bu suba bi bu delsi ñëpp nañ fa daje seize heures ñu teg xeer bi ñu mañ te nee na incha allah liggéey bi du yàgg liggéey bi dara du ci yàgg moom nee nañ caabi jaa ngi nii hmm. xam nga loolu waxtaan na ci li mu ci war a wax yëpp waxtaan na ci Idrissa Gay mii wàllu daara yi programme mu daara yi programme l'islam bi yëpp waxtaan na ci Idrissa Gay ndax ne na man Omar Idrissa dama ma doy ma ne ko lu tax mu ne Idrissa loo gis ci diina lay daw ma ne ko ñun ñi ñëpp de suñuy doom ci moom la ñuy jànge alxuraan su doomu sëñ Souleymane Seck du sama doom ñëpp a balañ jànge alxuraan alaaj duut gay nag dañ ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ndax ndeysaan taylul ci dara loo ko wax jóg na dem di ñaanal Ousseynou ak Assane mbay Faye jërëjëf yal na fay yàlla defal ñu jàmm ak salaam asalaamualeykum képp koo xam ne mi ngi ñuy seetaan wala képp koo xam ne mi ngi ñuy dégg ci Sénégal wala or du Sénégal wala jaspora bi wala ñépp rek ak ñi nga xam ne ñoo nekk Europe ñi nekk Amérique ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar ñun ñi nga xamee ne ñooy la ligue des imams et oulémas de la région de Thiès ñëpp ñu ngi leen bëgg a yëgal xibaar boo xam ne bu rëy la ci nun ndax ki ñuy wax alxaaji Mor Gueye soppu nabi alayhi salaatu wassalaam dafa def jëf ju rëy joo xam ne xaaroon woon nañ ko ci ku nekk te dem ci ku nekk dem nañ ci ay autorité dem nañ ci ñeneen waane yàlla def ni ko sumu secrétaire waxe rek xam naa daal mbir maa ngi soog a ñëw ci ki nga xam ne moom moo ko wara def muy alxaaji Mor gi sopp na bi ndax booba ba tey depuis defe na vingt ba ñu sosee booba ba léegi ñu ngi wut li ñuy wax local wala siège wala ñu koy wax ci arab maqar al maqar a ah, ñu ngi ko doon wut booba ba tey wane yàlla deful nu am ko waane nag bi nga xamee ni nag euh, Umar dem doon na ñaanal baayam ñu dem ca ba ñu demee Umar dem wax ko ngañ fay ngañ fay yëkkati ko ci wetu euh, alxaaji morgay sopp na bi mu ne kon yéen na ngeen yëg ne am ngeen ko incha allah am ngeen ko booba it dañoo defoon ne terrain rek la ñuy jox waane mujj gi mu wax ne incha allah maa leen koy defal fondement maa koy defal fondement maa koy yëkkati ah su ko defee nag am na ci liggéey boo xamee ne ñun ñoo koy dese ndaxte tam duñ la defal lépp nga jël lépp nag duñ la may lépp nag nga def lépp nag nit nag day am tuuti ngor am jàmbaar tuuti ah su ko defee mu ngo alaaji euh, sopp morgue sopp na bi su defee loolu tam dafa bëgg tam incha allahu euh, encouragé ñu ndax moom déjà mën na ko ba wax ne fondement bi lay def keroog bañ koy waxit euh, sunu doom bii bu baax bii sunu doom bi di Cheikh idrisa xam ne Mor moom rek la woolu ci lislaam moom rekk la fonk ci lislaam keroog bi mu laataa jóge foofu puisque mu ngi demoon ci benn cérémonie boo xam ne moom moo ko doon war a animé mais bi Mour Gueye waxee loolu dafa dikk ba samay nopp ne ma euh, na nga am assurance am nga garantie incha allahu danaa ca wax ba yàlla def ko incha allahu waane moom xam naa ne lu mu wax rek dana ko def waane nag du tee nag paaka lu mu ñaw ñaw des na ko euh, kii ferasu waaw mu ne ma incha allah su ma demee dinaa ci wax baax a baax a baax a baax ba lii mu wax mu yeggale ko waane yeggale na ko alhamdulilahi rabbil alamin yeggale na ko ah euh, ligue bi yëpp tam ñu ngi fi mën naa ne ligue bi ñu ngi fi puisque foo xam ne ab secrétaire général mu fi di alxaaji Duudu Gay mi nga xam ne njàmbaaram moom mata tutala sax ñépp xam ne njàmbaar la jàmbaar la ci diine bi jàmbaar la ci lugal arabiya bi nga xamee ne patron la fa woon boo xam ne ci la retraité inspecteur la fa woon te suñ dee wax lang arabe ak yooyu yëpp yaatoom defaroom ci Sénégal yëpp mën nañ ne alaaj Doudou Gueye mii moom te ñëpp yaakaar nañ ne gis nga langue arabe su yaatoo rek l'islam bi gën a yaatu ñoom xam nañ ko tubaab bi sax xam nañ ko ba dañoo defe ne langue arabe mooy l'islam l'islam mooy langue arabe su ko defee moom jàmbaar la ci taxaw na jàmbaar bu mag la waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi yàlla defal ko jàmm mu ngi fi teew sunu trésorier général imam Ndiaye mi nga xamee ni imam yëpp ñoo ko gëm fonk ko am ci moom euh, wóolute daal di yëkkati kees gi teg ko ci loxoom xam nga ne kooku mos euh, wóolu na wóolu am na ko wóolu kon nag su fekkee ne dañu am xéewal goo xam ne dañ koy préparer nag pour mu ñëw te euh, lépp euh, alaaji Mor Gueye sopp na bi moom la te pare pour ñu def pose première pierre képp koo xam ne mën na ci dara doonte sax da ngay dikk teew teew na ko def waaw ku ci mën lu ëpp teewaay na ko def waaw na ko def fa tabarakallahu à 17 heures ñii wala 17 heures ah 16 la waaw le 10 le 10 juillet samedi ci lañ koy def kon invité nañ ñëpp